jëf teraangay jomaay ji mu jug ca cour suprême la journal yi xëy di séddoo déclaration de patrimoine am mu def ba yónnee ko waa cour suprême la ca nekk leer na l'observateur nañu ne mu ko diggee woon askanu Sénégal laata ñu koy fal président de la république ak ni mu leen ko waxee bi ñu ko falee président noonu la ko defee mu di jël li mu am yëpp ci teraanga bind ko ci këyit siiwal ko ñëpp xam ay compte banque ak la ca nekk bor yi mu amee moom président de la république Bassirou Diomaye Faye am na ñaari compte ci ñaari banque yu nekk ci réew mi benn compte ba ma nga ca banque BICIS compte boobee ba ci datub sulet 2024 14 millions moo fa nekkoon am na fa ab compte d'épargne boo xam ne la fa nekk mi ngi toll ci 2690 beneen compte bi mu am mi ko amee ca banque bii di UBA compte boobee 7 millions 457 mille 852 francs moo ci nekk am na ci banque yi bor bu toll ci 30 millions 964 cent mètres ca Mermoz di kër goog terrain bi nee mi ngi ko amee woon ci syndicat impôt domaine gi mu doon liggéey bi ko expert xayma gis nañu ne terrain bi ak njëgam mi ngi toll ci millions la mu ko tabaxee mi ngi toll ci millions neuf cent soixante seize mille ci déclaration patrimoine bu Bassirou Diomaye Diakhar Faye bi baaboog mu fàtte ko leeral l'observateur nee nañu mooy fan la jëlee millions francs yi mu tabaxee këram ga ca Mermoz li tey xel ci teranga ji président téeméeri million laaj bi di ab simple fonctionnaire inspecteur des impôts nan la mën a liggéey ci fukket ak juróom lu mat ñeenti téeméeri million journal l'info nañu moom kay bu ñu sukkandikoo ci li mu déclaré ne loolee am ci patrimoine mënees naa jàpp ne amul xaalis bu bari waaye naka ci wàllu immobilier moom ku ci la mbir meneen mu jommal journal bi ci patrimoine bu jomaay bi moo di borob fanweeri million gi mu amee ci banque yi ëpp na salaire juróom benn yoon Quotidien nee nañu mooy Diomaye Faye ndax li ab inspecteur des impôts di fayee ko weeru nekk mi ngi tolloon ci 300 000 francs CFA bi Macky Sall ñëwee ci la ko doublé def ko 600 000 te yamu ca ndax li ñuy wooyee fonds nga xam ne ku toll ci grade bi Diomaye tolloon di nga laal ci fonds commun yi lu mu gàtt-gàtt fukki million boole ci kit prime de recouvrement bu 500 000 booy am loolee yëpp boo ko xayma inspecteur impôt bi dina am juróom fukki million at mu nekk avant impôt waaye ndax loolee lépp mën na ko may patrimoine foncier gi mu ne moom la am lu mel ne këram ga ca Mermoz nga xam ne nee na mi ngi ko amee sur attribution amee ci ci cité kër góor gi di kër góor bi ko experts xayma boole pàkk beeg tabax bi lépp lépp mi ngi toll ci 274 millions 976 jomaay wax na ñeenti terrain yu ñu tabaxul yu mu am ca Kees ak ca Fatick bi di Le Quotidien nañu ca moo day terewul yàgg nañoo gis ay militants yi yu ñu doon xam bu ñuy ŋawta ŋawtee milliards yi Amadou Bay te teguñu koon fenn lu dul xaalis bu ñu ko doon déggal ak ay kër yu ñu ko doon déggal ci réew mi ci koo xam ne moom ak jomaay Sonko ak doonu ñu woon sax chef de service Amadou Ba jóge fa doon ministre des finances ba ni mu teeree ci poste premier ministre kon fu Diomaye Faye ak Ousmane Sonko mën a lu ñu yor en tant que fonctionnaire des finances war res naa wax Amadou Ba dara point actu di ñu wax ne déclaration patrimoine bu président Diomaye bi bari na ay rëq-rëq yu ci am ndax ni mu ko defee mu di wax li mu am ci patrimoine laata muy doon président bu ko neexee bu demee ba doomi aadama ak ñaar ñàkk ci seen bakkan seeni kanam ñoom fukk yeeg ñaar yi faatu ci boobale accident mi ngi ci biir l'observateur le témoin mi bind na fukki nit ak benn ñoo faatu ci accident bi mi ngi ñuy wax ne ci yoon wi dox diggante Mexe ak Kébémer fa la accident bi amee Vox Populi ne ko fay tolloog dëkk bi ñu naan Palmeo benn camion moo fa mbëkkante ak benn minicar fukki nit ak ñaar ñàkk ci seen bakkan juróom-ñetti nit jële cay gaañu-gaañu tali bi ak li muy fàcciw nit jéggi na dayo ndax journal Tribune mi ngi ñuy wax ne ci diirub ñeenti fan wàññi nañu ci réew mi ñaar fukki ak benn yu faatu ci tali bi ci accident